góor ñi nga xamante ni bu ñoom laaj bakkan ñu joxe ko lan moo ñu war ak ñoom ñu xalaat ni nañu toog lu ñu tuddee leketu ngor leketu ngor nag ñaar la li ko tax a jóg mooy fexe ba jigéen ñi parce que leketu ngor du xaalis boobu ñuy jël rek jox leen ngeen seddoo leen déedéet dañoo fexe ba ngeen di liggéeyal seen bopp ñu jël dara teg ci ni leen mayu ñu leen ko yéen waaye leket gi lañ ko may ngeen di liggéey di fay leket gi bu demee ba benn moment ngeen ubbi ko la ca biir leket ga ngeen séddoo ko fekk na boobu nag defal nañ leen formation ba ku ci nekk groupe ku ci nekk ak métier bu mu mën a daane doole looloo ko tax a jóg ci beneen élément bi tamit mooy leketu ngor ay valeur la parce que ku ne xam na ni li tax suñu dëkk yi suñu famille yi koom-koom gi demeetul noonu mooy da daan dégg ñu naan la kumbaa ngay duggi marché kumbaa ngay duggi marché lekket boobu moo daan nekk luy law parce que lekket ak mbàtt ñoo yam mag ñi dañ ko daan lekke kër gi di am barke muy law donc law boobu lañ ci bëgg mais ngor giñ ci dugal xam mooy lan politique gu léegi ku ci ànd ak nit tooba saxal mbaama suli la dama lay jox ku ñu jàppale ñu jàppale la wax jooju dégguma ko benn yoon ci ñii ma àndal ci lu ngeen nekk ñu ne xanaa jàppale la ci lu ngeen nekk ku ci nekk bu ma doon duma leen lim mukk ndax ku ci nekk li ngay daj xam naa ko ñu ne léegi ngor googu ñu àndal nañ ko jëmmal mu nekk du Malick dafa leen ëppale di leen jox déedéet Malick daf ni ci ngor ngeen ànd ak man ma fas yéene ànd ak yéen ci ngor ñu sos leketu ngor mais mënuma bañ remercier une fois encore ki nga xamante ni moom lañu ñu dénkoon volet économique bi mu di ko doxal muy Seyga Madame Khady Ndiaye bu réseau Seydina Mohamed pour le développement nous sommes quittés de coiffure nous sommes lañ